kañ ngeen pare. nañ ko def léegi nii barke maam Sara. non mais quelques heures biir Valence. nañ tàmbali léegi. kon lam doon yëpp egg si. noppi nan ngaa waral. <laughs> waaw loo indaale. taj taa. yi nee nañ da nga bàyyi woon Perrier te da nga ñëw Brescia Perrier. alors xam nga Balla sama grand la quoi. ba pare day denc suma système. te bu jiitee lay yëf yi. ànd ceeg rakam yi ñoom asak gars yi faaw ñu dekkalaat cosaan ñu bëri dañoo foogoon ni mënatuma Perrier sax wax dëgg yàlla ndax dama ko bàyyi woon. waaye ku nam mu gis samay samay acrobat ak samay business suba je te donne rendez-vous. mais dañoo gis retouru Ramdan ci biir Europe après Covid bi ngeen ñëw ak force ñëw ak allure ñëw ak vitesse lu waral loolu. waaw parce que dañoo namoon ci kaw bi nag wax dëgg yàlla on est resté trois ans sans pour autant venir ici donc bu yàlla defee li ñu tënkoon mat ci jàmm ak salaam ñu dellu si fii nga xamante ni dañ fi am ay nawle ay mbokk ay doomu nday kon bu ñëwee dara du yomb. kon dal yéen ko déggandoo Arma Ndiaye nee na dara du yomb Amady Badiane pare na. orchestre bi pare donc c'est à quelques heures du grand concert. barke borom Tuubaa Paramaré qui sème le vent récolte la tempête. neena ki qui le vent récolte la tempête yéen lan ngeen semé. j'attaque je cogne et je.

6 heures 18 heures maanaam lay commencé donc avant 18 heures na ñëpp ñëw ndax ngeen am place bu baax. Hmm. mën a seetaan Wally Ballago Seck ndax yu bees yi mu indee bu ko kenn nettali kenn nee naa bu jinne bëggee Dakar ku yëg daanu fii dina wàcc ba zéro. ñu ngi leen di xaar teew ñuy nataal. tungu ne du teew ñuy nataal musicien yaa ngi fi Wally Seck sànq la fi jógee répété ak musicien mi. donc nag ñi ngi publicité gars yi yéen a gis bagage yi ci internet bi donc nag na ñëpp def ba maa ngi wax waa Espagne yëpp. bu ko kenn tardé waa France ñëpp nañ ñëw teewee bis bi muy le 27 suba di vendredi incha allah teel leen na ñëw waaw buñ ko nettali kenn nag dañoo bëgg ngeen gis ko en live ñu bañ leen ko nettali. kon ñoo ko déggandoo kii nag Italie la jóge mami borom Italia waa mami mami mami borom Italia def Brescia doyloo Brescia nga ñëw fekk si ji fii Valence ah lépp ngir Faramareen bi kon gaañ ñi Espagne xam leen ni que su junjum rëkkee rek ñi xam ne jàmbaaray wàcc te jàmbaar ji jamono ji du kenn yàllaa ko def muy le jeune Faramareen le chanteur du peuple l'incontestable l'homme qui a hissé le drapeau du Sénégal partout à travers le monde nee la c'est le dernier virage on est à quelques heures du grand concert du 27 mai qui restera

ak waa orchestre bi ñoom Arma Ndiaye ñoom Amadou Badiane groupe bi yëpp ñoo ngi fi ñu bëggee leen ngeen teel a ñëw à 18 ndax concert bi 20h lay commencé ba 23h donc ñoo ngi waa waa Valence yëpp yëpp yëpp yëpp di woo mbokku sénégalais yi foo mun a nekk ci Europe Mbaye Family moo xewle ci festival Saint Africa jaay ngeen jëfati sama gars yi. lernan nañ maay family festival Siente Africa Bir Valence kon képp ko xamanteni doomu Sénégal nga nga nekk fii ci Espagne ya xam fo mën nek muy Barcelone di Madrid gañi ñi ndaxte jambar wi ñewna na Faramaren yi ñëw gis ngeen Mariama mom def na ba mu très bien moy borom balay ci accueil ba ku nam ma gis nak limu mu préparé da koy fekk ci kaw seen bi mook Armand Ndiaye du yo bobu du yom li fi noonu Balla jël na lépp dana dul lu bari waaw Rita Mballe bi commencé na borom Rita Mballe baa ngi nii muy ay tamit quelques heures rek moo ci a ngi biir Valence ginnaaw bi ngeen jógee Italie lan ngeen waral waa Espagne. Ah. ndaxte gars yi ñu ngi leen di xaar ñii di naan ndax Benjamin ñëw na wala ñëwul. non Benjamin ñëw na. loolu daal Rita Mballe bi ñëw na incha allah ñu ngi wax yi daal na ñëpp teel ñëw parce que comme communiqué nañ ci heure bi bu baax a baax ñu respecté ko bu ko defee ñu mën joxe liñ bëgg a joxe. fan si daal nee nañu Benjamin la bëgg a ñu bëggul woon ñu xamul woon ni que Benjamin mi ngi fi kon Benjamin egg si na Rita Mbala bi egg si na. dégg ngeen bu baax lu mu wax nee na joxe nañu heure bi heure bu baax bi ban heure Ah gaay yi ñu ngi wax ba ban heure. 18h euh, 18h. waaw 18h ah, na ñëpp teel a ñëw 18h fekk leen fa bu ko defee wàllu du tëb benn morceau. incha allah kon ñoo ko déggandoo Benjamin borom Rita Mbala bi nee na na gars yi teel a ñëw ndaxte wàllu du tëb benn morceau cey cu Jackson suba ay ah, surprise quoi. ay surprise la. suba fii moom beneen affaire la. Hugh Jackson da ngaa toj Genève. Ah, nga jógee fa ñëw Brescia toj ko. ñu foog ni fa nga yem nga dellu Torino def ko dóom. maa la wax loolu. nga dellu soit ñëw biir Valence. looy wax ak espagnol di leen wax ni nanu teel a yegg si rek. teel a añ teel a njogandu ko 18 heures fekk leen fa. spectacle bu garaaw la ñuy gis. instant yi toll nii forme bi moom macha allah Ramadane ñëpp ngi ci forme rawatina man. Ramadane daan a ngi ci forme ñu doon laam-laamee ndax orchestre bee ñëw mbax du orchestre bi gis ngeen. ñëw nañ nag yegg si nañ Sam Thiam ak yegg si nañ nag. maanaam kàlla kàlla sàmm tàll kii ba ci kon ñoo ko déggandoo Sam Thiam loolu la wax gars yi ñëw nañu egsi nañu nee naa leen jinne su bëggee Dakar ku yéeg daanu waaye li gars yi doon xaar di ko wax muy kan baa xol yaa ngi feex kii nee na ndax xol yaa ngi feex boo ko mbay si taalibe sëñ Fallou waaye Espagne de ñi ngi doon laam-laamee ndax orchestre bi ñëw na wala ñëwul nee nañu quelques heures moo ci des lan ngay wax ak fans yi weddi gis boo ko ca di leen nuyu di leen jox suba rendez-vous incha allah di fi nag fekk fi suñu jarbaat as mbay ak Balla ñu ay xale géwél yu am jom yu am personnalité looloo waral suñu teewaay fi yaakaar naa liñ def cuune mënu ñu ñëw nag war a bégal waa Espagne ak li ko wër Europe gépp di jox ñëpp nag mais nag di insister ci heure bi parce que nag wax dëgg yàlla dëkk boo dem dafa am lu fa xew li xew fii bokkut ak la xew Sénégal fii saali bu la nee 20 heures lay commencé vingt 23 heures lay jeex loolu lay jeex amul benn morceau nga tëgg amul vingt morceau nga tëgg nag nit ñi teel a ñëw incha allah ñu teel a yéeg bégal leen defee ko comme niñ ko defee ci yeneen réew yëpp incha allah. mais est ce que keroog li ngeen def Italie di ngeen def lu mel noonu fii Espagne. mais yow ñun lépp lu ñu romb li ñu jublu mooy gën a neex mooy gën a saf mooy gën a bu nandaat yow xam nga loolu sax baax na. gars yi daal nee nañu retour Ramadan bi yoon ci biir Europe dafa mel ni que gars yi dañ ñëw force indi vitesse yokk dolli cere yokk ñeex waa Espagne nag nee nañu est ce que mbay sii li mu tëgg Italie dina tëgg lu ko raw biir Espagne. bii mooy parce que euh, dëkk yooyu yëpp fu ci na xam nañ ñu mais fii Espagne bi dafa am lu ñu fi war a def loo xamante ni loolu lu spécial la man daal wax ji jarul muy gudd. nañ ko gàttal di jox ñëpp rendez-vous ñu teel a ñëw ñu xool ñu gis. kon gaa ñi ñoo ko déggandoo mbay si mbay a ngi noonu. mbaa xol yaa ngi feex nee nañu waa Valence ñëpp seen xol dafa war a feex. lépp fi lay xewee Sam Thiam wax na leen ko dem gaa ñi yaakaar naa ni c'est le ramadan au complet gis ngeen ay heure ci des jamono ji ñu ngi jógee répétition waajal bés bi suba 18h la bu ko kenn tardé ñëpp na leen fa fekk seen place Wally Balago Seck ñëw yeeg sur scène ànd ak yéen. ba 23h ngeen xam ni na du teew ñi nataal dëgg fu mu feeñ rek ñu xam ne dëgg rek a fay feeñ kon ngéwal yëngu na ndaxte suñu ne Ass Mbaye ne Balla mbay rek yaakaar naa ni junjum su rekkee rek xam ne jàmbaaree waaj te jàmbaar gi jóg. xaalis lañ koy wax waa Espagne lañ li ngay wax. temps euh, euh, yoo xam ne ñun nañ bis euh, toj nañu Italie Brescia ñu Espagne fi war koo tournée yu bari macha xam nga waali mën na bis ramdaan dara duñu bett taas bu subaa ci kattanu yàlla nem neex na yàlla di nga xam ne dëgg rek ay dëgg lu waay di jàng na mokk dañ doon déglu léegi morceau yaay ci biir oto bi maag Cheikh Anta bi ñu def Italie mais barke Serigne Bamba waali ci benn mesure ci la boole fukki tur ak ñaar déglu loolu taas benn mesure la la boole fukki nit ay tur ak ñaar barke Cheikh Ahmadou lii léegi laa wàcc di ko déglu far yam ci yow morso yaay déglu ko état euh, fële Italie benn mesure la boole fukki nit ak yaay ci daan ñu doon joué orchestre ku ci nekk sa tur mu jaar ci ci benn mesure. est-ce que c'est pas facile. ñu gis ni que ngeen duggaat Europe indi vitesse indi chaleur indi ambiance indi spectacle changé la lu waral loolu ginnaaw bi ngeen toogee ñetti atu Covid duggu leen Europe. mais xam nga ñu ne yow ñoo yëpp temps Europe moo ñu nam Europe moo ñu nam moo tax bu ñuy dugg bu ñu fiy dugg dañu fi dugg benn allure boo xam ni allure bi moo gaaw parce que allure bi li tax mu gaaw mooy booy dem di fekk ji ay nit ñi ngay fekk gën laa ëpp allure bi ngay daw ndax namm gun la namm moo waral allure bi ñuy daw gis nga ñi ngeen di soog a jógee répétition kon fonk nañu bis ni ñëw ba répété Sénégal ba pare ñëw Espagne tëjee fi répétition bi kon xam nga ni fonk nañ bis bi waali nag moo tollu noonu temps waali moo toll noonu